soxna ummi mbàkke soxna ummi mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1880 ci dëkk bu ñuy wax mbàkke kajoor soxna ummi mbàkke di doomu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ak ku ñuy wax soxna penda ture soxna penda mi meññ soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim soxna penda siise lañ ko gën a xamee soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim am na nag ñu bokkal soxna penda ture ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ muhammadu kabir mbàkke ibnu bintu soxna Penda Touré ibnu sëriñ Touba Seexul Xaddiim ak moom soxna Ummi Mbàkke bintu sëriñ Touba Seexul Xaddiim bintu soxna Penda Touré ginnaaw ñaari bant yooyu soxna Penda Touré am ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ginnaaw bi ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim foboon na soxna Penda Touré jébbal ko ku ñuy wax sëriñ Gumba Touré sëriñ Gumba Touré am na njaboot ak kii di soxna Penda Touré mi meññi soxna Ummi Mbàkke bintu sëriñ tubaa Seexul Xaddiim ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna Aminta Touré bintu soxna Penda Touré bintu sëriñ Gumba Touré ak ku ñuy wax soxna soxna assu Touré bintu soxna Penda Touré bintu sëriñ Gumba Touré ak ku ñuy wax soxna xari Gumba Touré bintu soxna Penda Touré bintu sëriñ Gumba Touré ak seen càmmiñ la ku ñuy wax sëriñ Moodu Touré Gumba ibnu soxna Penda Touré ibnu sëriñ Gumba Touré ginnaaw bu soxna Penda Touré jógee ci loxoy ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddim te demaatoon ci loxoy sëriñ Gumba Touré ñeenti bant la am ak sëriñ Gumba Touré soxna Ummi Mbàkke bintu sëriñ Tubaa Seexul Xaddim juróom la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy juróom benn kenn ki rek la bokkal Xaadim Rasuul ñi soxna Penda Touré rek lañ bokk te bokkuñu xaadim rasuul laataa ñu ñëw ci mbirum soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaadim ñu leeral rek kan mooy waajuram jigéen wii di soxna Penda Touré ak njaboot gi soxna Penda Touré am soxna Penda Touré doomu sëriñ moor muttu fa Touré la sëriñ moor muttu fa Touré wala réew ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim la nekkoon te jàmbaar la woon itam ci wàllu lislaam ba tey sëriñ moor mutu fa ture mi meññi soxna Penda Touré mi meññi soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaadim moo meññitim meññ ku ñuy wax sëriñ Modou Mokhtar Touré sëriñ Modou Mokhtar Touré moo meññ sëñ Abdou Karim Touré mi ñépp xam ba tey sëriñ Mor Mutufa Touré mi meññ soxna pend Touré mi meññ soxna Ummi Mbàkke bintu sëriñ Tubaa Seexul Xadiim moo meññ ku ñuy wax sëriñ Mor Penda Biddiw Touré sëriñ Mor Penda Biddiw Touré moo meññ sëriñ Seexu Touré bu ngin ngi néew loolu ba tey bokk na ci rek ni soxna pend Touré ci njaboot gu baax la bokk ndax doomu sëriñ Mor fa Touré la te sëriñ Mor fa ture nag ci jàmbaari lislaam yi la bokkoon ba tey kii di soxna pend Touré bi mu matee dem kër di doomu sëriñ moor mu tufa Touré sëriñ Touba seexul xaddim lañ ko jébbaloon ba tax na am na ñaari bant ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim muy sëriñ Muhammadu Kabir Mbàkke ibnu sëriñ Touba seexul xaddim ak soxna pend Touré ak soxna ummi Mbàkke bintu sëriñ Touba seexul xaddim ak soxna pend Touré sëriñ Muhammadu Kabir Mbàkke ibnu sëriñ Touba seexul xaddim ak soxna pend Touré guddul aw fan soxna ummi Mbàkke bintu sëriñ Touba seexul xaddim ak soxna pend Touré maam Cheikh Ibrahima Fall lamp muridiina lañ ko njëkkoon a jox ginnaaw bi nag lañ ko jébbal sëriñ ma yaasin ummi jeng ba tax na am na ak njaboot ak sëriñ ma yaasin ummi jeng ginnaaw ñaari bant yooyu soxna pend ture am ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim amaatoon ku ñuy wax sëriñ gumba ture muy ñeenti bant muy soxna aminta ture soxna assu ture soxna xari ture ak sëriñ muudu xari gumba ture ñeenti bant yooyu soxna pend ture am ak kii di sëriñ gumba ture ki ci mag mooy soxna aminta ture bi matee dem kër sëriñ moor busa mbàkke moom maam moor jaara lañ ko jébbaloon ba tax na am na ak njaboot ak sëriñ móor buso mbàkke bu màmmoor jaara ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna faati mbàkke saam ak sëriñ basiiru mbàkke saam ak ku ñuy wax soxna asta mbàkke saam sëriñ basiiru mbàkke saam mi toogoon na toogaayu màmmoor jaara lool bokk na ci njaboot gi soxna aminta ture am ak sëriñ móor buso moom màmmoor jaara ñaareelu doomu soxna penda ture ak kii di sëriñ gumba ture mooy ku ñuy wax soxna asta ture bi matee dem kër sëriñ omar mbàkke gelongal lañ ko jébbaloon ba tax na am na ak njaboot gelongal ñu ràññee ci sëriñ basiiru mbàkke gelongal ak soxna assu tuuba mbàkke gelongal ak soxna penda mbàkke gelongal soxna penda mbàkke gelongal gi nag mooy taxawu sax bisub soxna ummi mbàkke ndax moo mag ci njaboot gi ñetteelu doomu soxna penda ture ak sëriñ gumba ture mooy ku ñuy wax soxna xari gumba ture bi matee dem kër sëriñ ma sàmba mbàkke mi caatu mammoor anta sali mbàkke lañ ko jébbaloon ba tax na soxna xari gumba ture am na ak njaboot ak cheikh ma sàmba mbàkke muy ñeenti duñu fan ñeenteelu bantu soxna Penda Touré ak kii di sëriñ Gumba Touré mooy ku ñuy wax sëriñ Moodu Gumba Touré sëriñ Moodu Gumba ture ñii ñooy ak njabootam muy ku ñuy wax soxna Penda Maane Touré soxna Penda Maane Touré moo meññ ku ñuy wax soxna Ummi Touré soxna Ummi Touré moo meññ El Hadji Njaay Seex Ndindi di sëriñ daara njaboot gii la njabootu soxna Penda Touré mi meññ soxna Ummi Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim meññ soxna Ummi Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ñii la bokkal soxna Ummi Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa xaadim bi matee dal alxuraanul karim waajuram xaadim rasuul moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal ki jàngal mboolem njabootu xaadim rasuul gi di sëriñ ndaam abdurahmaan loo wala ki jàngal li ëpp ci njabootu xaadim rasuul gi di sëriñ ndaam abdurahmaan loo ginnaaw njàngum alxuraanam bi mu noppee nag mu wéy nag nekk ci loxoy waajuram soxna penda ture di liggéey comme nag ni ko jigéen fas yéenee defee waajuram soxna penda ture moo ko yore woon ba soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul dem kër laataa soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim di dem kër waajuram xaadim rasuul amoon na fi takk-takk ak tubaab bi ñu yóbbu woon ko ci géej gi bi sëriñ tuuba seexul xaddiim mi waajur soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim di dem ci géej gi njaboot gi mu fi bàyyi woon di dem ci géej gi soxna ummi mbàkke ci la bokkoon ñu ràññee woon ci juróom ñu jigéen ak ñett ñu góor juróom ñu jigéen ñi mooy soxna fat ja mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim soxna assu mbàkke mbàkke kajoor bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim soxna mareema kunta bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim ak moom mii di soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim ñett ñu góor ñi mooy cheikh mamadul mustapha mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim cheikh mohamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim ak seen rakk ja cheikh mohamadul lamin baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xaddiim jógee ci géej gi nag la fi fekk seen jeneen rakk ja di cheikh mamadul bachir soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim bi waajuram rasul jóge ci géej gi ci la 11 novembre 1902 booba soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi ci loxoy waajuram soxna penda ture bi sëriñ tubaa seexul xaddim jóge ci géej gi ci la 11 novembre 1902 gisee nag mbooleem njaboot gi mu fi bàyyi woon ay weer nag la fi defaat amaat fi takk-takk ak mbaaxaan tubaab bi duggaat ci ñuy boot sëriñ tubaa seexul xaddim ci réew mi di gànnaar ci beneen résidence surveillée gànnaar googu soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim dem na fa fekki waajuram wa xaddim rasul bi soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim eggee ci réew moom di gànnaar ci dëkk bu ñuy wax xumaag la fekkoon waajuram wa xaadim rasul ci atum 1904 bi mu eggee ziyaare waajuram xaadim rasul keroog bi muy ñibbisi moom soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim waajuram xaadim rasul joxoon na ko kurus di ko wax ne soo demee nga joxal ma ko sa waajur wa soxna penda ture te ni ko wax ne na ko sàmm te fonk ko te lépp lum soxla na ko laaj kurus gi te bala ko kurus gee fasee dana ko wan àjjanaam soxna ummi mbàkke xaadim rasul fonkoon la ba tax na daana seede ci moom lu baree bari moom soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xadim ba tax na bi ko sëriñ tubaa seexul xadim jébbalee jàmbaaram ja sëriñ ma yaasin ummi jëng ci njaareem googu la soxna ummi mbàkke ëppoon lum nekk ak sëriñ ma yaasin ummi jëng ci kër ga fa sëriñ ma yaasin ummi jëng amoon ba tax na sax ci njaareem googu la génne àdduna ci atum 1924 bi mu matee dem kër moom soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xadim maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moo ko jébbaloon jàmbaaru sëriñ tubaa seexul xaddim ba di maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina dëkkoo woon na soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina mook soxna ummi mbàkke amuñu ak njaboot waaye soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim kim yàggul ci loxoy maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina ginnaaw bu mu jógee ci loxoy maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina moom soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ tubaa seexul xaddim mi waajuram moo ko jébbalaat geneen jàmbaaram ja di sëriñ ma yaasin ummi jëng ngir sëriñ ma yaasin ummi jëng dëkkoo soxna ummi mbàkke sëriñ ma yaasin ummi jëng woon na soxna ummi mbàkke ci dëkk bu ñuy wax guyaar jëng ginnaaw guyaar jëng nag indiwaat na ko njaareem ci wetu waajuram xaadim rasuul ba tax na am na ak njaboot ak kii di soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaadim ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna maryaama jëng sëriñ ma yaasin ummi jëng ak ku ñuy wax sëriñ soxna ummi mbàkke ibnu sëriñ ma yaasin Serigne Oumy Dieng ak ku ñuy wax Xaadim Rasool Dieng ibnu soxna Oumy Mbàkke ibnu Serigne Mayaasin Oumy Dieng ñetti bant yi la soxna Oumy Mbàkke bintu Serigne Touba Seexul Xadiim am ak Serigne Mayaasin Oumy Dieng ci ndigalul ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadiim moom mi ko jébbaloon bi soxna Oumy Mbàkke bintu Serigne Touba Seexul Xadiim nekkee ci loxoy Serigne Mayaasin Oumy Dieng ñu bari ci ay doomu ndeyam moo leen yoroon ndax barke ba ak taar ba ak nurugum nuru woon Xaadim Rasool ci joxe ba tax na nit daana jaaxlee fu ne su ñëwee su gisee soxna Oumy mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim jaaxleem daa jeex mu wéy nag nekk ci loxoy sëriñ ma yaasin ummi jëng ba ni mu génnee àdduna ci atum 1924 bi mu génnee adduna waajuram xaadim rasuul fobaatoon na doomu mammoor jaara juñ doon wax soxna màggat mbàkke ngir mu wuuf njabootuk soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim gi mu am ak sëriñ ma yaasin ummi jëng ba tax na soxna màggat mbàkke bintu mammoor jaara am na ak njaboot ak sëriñ ma yaasin ummi jëng ñu ràññee ci sëriñ mustapha jëng ak ku ñuy wax soxna loota jëng bintu sëriñ tubaa seexul xaddim nag nekkoon ku yéeme ku taaru ba tax na soo demee ci way wii di xarnu bi te cheikh Moussa Ka di tudd mbooleem njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bi muy tudd soxna ummi di ko ca way ak di ko ca kañ taar ba ak melokaan wa tudd ci mbooleem jikkoy soxna ummi mbàkke yi kon ku taaru la woon te mboolem ñi ko xamoon xam nañ ko moom soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim taar boobu soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim amee woon ba mu yéem ko xamoon ñépp jikko masaa am bokk ko ku ne tax na ñu baree bari ci njabootuk sëriñ tubaa seexul xaddim tudde nañ ko doom mag ñi wëllërante woon ak moom itim wala ñu fekkante woon ak moom jamono itim tudde woon nañ ko doom ndax jikko ja ak taar ba ak melokaan wa ak nurugum nuru woon xaadim rasuul ci joxe loola itim tax na liñ tudde ay saa bàjjen mu amee woon ci lu takkoo takku ci bim nekkee ci loxoy sëriñ ma yaasin ummi jëng ay turandoo itim am nu ko ci ëttub xaadim rasuul bi rakkam seex mamadul mustapha mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddim tudde na ko doom soxna ummi mbàkke bintu cheikh Modou Moustapha mi ngi fi woon moo meñ cheikh Mourtada Fall bu Mboro cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tudd na ko ñaari yoon doom moom soxna ummi mbàkke bintu sëriñ Touba Seexul Xadim soxna ummi mbàkke Madina Touré bintu cheikh Mamadul Faadal Mbàkke soxna ummi mbàkke moomu soxna ummi mbàkke bintu sëriñ Touba Seexul Xadim lañ ko tuddee cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam tudde waat na ko baneen soxna ummi mbàkke ñu koy wax soxna ummi mbàkke Touba keroog bi soxna ummi mbàkke Touba matee am aw tur kii di cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tudde ko soxna ummi mbàkke bintu sëriñ sëriñ tubaa seexul xaddiim soxna faati kura mi bokk ak soxna penda ture benn waajur wu jigéen doon na xamal cheikh mamadul faadal mbàkke yow de ko bëgg soxna ummi mbàkke nga xanaa dangaa fàtte ne tudde woon nga ko am soxna ummi mu dul faadal mbàkke di ko wax ne am doom fàtte ko kenn du ko def waaye soxna ummi mbàkke mële sëriñ aafee ñang moo ko tudde woon soxna ummi mbàkke mii nag maa ko ko tudde cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim tudde na soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim doom ndax soxna ummi mbàkke bintu cheikh mamadou lamine baara mbàkke mi ngi fi woon cheikh mohamadul bashir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim tudde woon na doom magam ji di soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim soxna ummi mbàkke mi cheikh mohamadul bashir mbàkke tudde woon magam ji di soxna ummi mbàkke soxna ummi mbàkke moomu mu yéeme la woon mook soxna ummi bàjjanam benn lañ woon te taar ba ak teel a sotti gi cheikh abdou xaadir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim tudde woon na ko doom ndax soxna ummi mbàkke bintu cheikh abdou xaadir mbàkke mi ngi fi woon sëriñ murtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim tudde na doom mag magam soxna ummi mbàkke soxna ummi mbàkke murtada sëriñ moodu mustapha mbàkke falilu mi doomu cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na soxna ummi mbàkke maamam doom elaaji muhammadu lamin baara mbàkke ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na soxna ummi mbàkke doom sëriñ mustapha mbàkke masamba tudde na soxna ummi mbàkke doom sëriñ moor doj tudde na soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim doom sëriñ ibrahima mbàkke moor doj tudde na soxna ummi mbàkke doom maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridi diina tudde na soxna ummi mbàkke doom ndax soxna ummi moom maam Cheikh Ibrahima Fall bu yàggul sax la fi jóge sëriñ Muhammadan Marema Daam tudde na soxna ummi mbàkke doom sëriñ Basiiru mbàkke gelongal tudde na soxna ummi mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim doom sëriñ Moodu mbàkke Ilimaan tudde na soxna ummi mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim doom njabootug sëriñ ma Yaasin ummi Jeng ñi ci takkoo takku tudde nañ seen bàjjen boobu doom ndax soxna ummi mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ci seen loxoy waajur la nekkoon di sëriñ ma Yaasin Yacine Oumy Dieng xam naa ku bëgg a lim kuñ tudde soxna ummi mbàkke daa juum ci gàttal daal bépp ummi mbàkke mu ngeen gis ci yoonu murit buñ ko tuddewul soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim kiñ ko tuddee soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim lañ ko tudde kon mooy bàjjenu bàjjen yi ba tax na ay turandoom am na ñu ciy wooye ummi am na ñu ciy wooye ummu kalsoom am na ñu ciy wooye kala soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim ci dëkk boobu di njaareem la génne àdduna ci nekkinu waajuram waa rasuul booba mi ngi ci loxoy sëriñ ma yaasin ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim jébbaloon sëriñ ma yaasin ummi jëng boobu di njaareem la ko bàyyi woon mu nekk fa ci njaareem googu nag la ko feebar tëralee foofu itam la génnee àdduna moom soxna ummi mbàkke bintu xaadim rasuul soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi génn àdduna bisub altene ñetti fan ci weeru tamxarit ci atum 1343 ci gàddaay gi altene ñetti fani tamxarit ci atum 1343 ci gàddaay gi mu dëppoog lundi 4 août 1924 lundi 4 août 1924 bi mu génnee àdduna ci atum 1924 ci ñetti fan yi tam xarit ya waajuram xaadim rasuul moo sàkku ci soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaadim ñu denc ko ci wetu maamam ja soxna anta sali kan ci dëkk bu ñuy wax mbampana keroog la sëriñ tubaa seexul xaadim di xamal mag ñi waroonu yóbbu soxna ummi mbàkke ci dëkk boobu di mbampana na leen na ngeen fexe ba buum laal suuf diggante njaareem ba mbampana ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim na keroog mi ngi wéy nag di yokk ca wax ja di leen xamal ne maamam di kan bi mu nekkee ci géej gi moo doon sàkku ci moom di ko xamal ne dafa bëgg ku ko wéttali foofu mu tëdd di mbampana moo tax bi sëtam boobu génnee adduna di soxna ummi mbàkke waajuram xaadim rasul ne nañ ko denc ca wetu maamam ji di soxna anta sali kan miy waajuru mamor anta sali mbàkke miy waajuru xaadim rasul sëriñ tubaa seexul xaadim nee na soxna ummi mbàkke mat na wéttal lool moo tax mu tëral ko ci wetu maamam ja soxna anta sali kan soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaadim ak soxna pend ture bi mu génnee àdduna waajuram soxna Penda Touré ak magu waajuram bi di soxna Faati Kura doon nañ jooy seen doom jooju di soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax li soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim nekk benn doom ci soxna Penda Touré ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim loolu itam tax na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bi mu ko yëgee woolu woon na soxna Faati Kura ak soxna Penda Touré di leen xamal ne soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim de bu doon man ma ko laaj ay yooni yoon ginnaaw bi nag la ki yónni ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam ngir mu laaj si ma ko bi ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam dikkee lu ne berndele naa ko ko waaye ngën gi mbindéef di ma xamal ne ruug soxna ummi la soxla loolu moom moo tax ma jébbal ko ruugi te man mi di waajuram xaadim rasul bu yónent bi soxla woon sama ruugi ma jox ko ko waaye nag danaa leen defal ba keroog ngeen di fekki soxna ummi mbàkke loo xam ne nii du ngeen fàtte soxna ummi ginnaaw bi nag soxna faati kura ak soxna pend turé a baax xaadim rasul ndax xam nañ ne ngën gi mbindeef moo soxla seen doom moo tax soo demee ci wolofal bi cheikh Moussa Ka defal sëriñ Moodu Moustapha Mbàkke Falilu di sëriñ Moodu Busa Jeng ma ngi ciy tuddaale ñaari maamam yooyu di sëriñ May Yaasin Ummi Jeng ak soxna Ummi Mbàkke cheikh Moussa Ka ci wolofalub sëriñ Moodu Moustapha Mbàkke Falilu boobu mu ko defaloon ba muy tudd soxna Ummi Mbàkke di maamu sëriñ Moodu Moustapha Mbàkke Falilu ma ngi koy tagg ca taar ba ak naw gu ko seexul xaddim nawoon moom soxna Ummi Mbàkke bintu sëriñ Tubaa seexul xaddim ak keroog bi mu génnee àdduna seede si ci seexul xaddim waxoon wax ne nañ ko denc foofu ci mbampana ndax maamam ja soxna anta salikan moo doon sàkku ñu denc ko fa ndax wétal la maamam soxla woon tam xam ne soxna ummi mbàkke mi di doomam mat na wétal ak yeneen ak yeneen yu cheikh Moussa Ka di seede ci soxna ummi mbàkke ci wolofal bi mu defal sëriñ muudu mustapha mbàkke falilu ñu teewlu wolofal bi cheikh Moussa Ka defal sëriñ muudu mustapha mbàkke falilu te di ci tuddaale maam jooju di soxna ummi mbàkke ñu teewlu la cheikh Moussa Ka wax ci maami sëriñ muudu mustapha jooju di soxna ummi mbàkke dégg ñun ma wax la lëf ca yaari maam ya dañ jaar nga xam ne bu ñu maasum maam ya Cheikh Bamba ak maamam sëriñ ma yaasin jur ndeyam kenn ca la lañ ca yaasin sëriñ ma yaasin ummi jëng mooy maam ja xaalim la àllam la te moo am daraja ba mu ñëwee ca bamba nosu waxam ga jubto Cheikh bamba toxal këram ga dikk fa jurbel toog fa seyxi bamba gàddaay bu wér ngir yàlla ak yonnen ba seex bamba fab doomam ja ummi mbàkke dal di ko koy jébbal tofal ca barke Cheikh bamba naa doomam ja yow kat ummi sëriñ ma yaasin ummi moo lay ramm billaahi wallaahi tegal taalaahi Cheikh bamba moo ko wax keroog billaahi maam soxna pend kuré moo doon yaayam keroog la sant yàlla santaat baayam alhamdulillahi sant yàlla ku am na yilla keroog la sax mu ne Cheikh may ak taa doom ji buñ ko yemalee bu yooyu baa siw jàng na jàngal naa ko dootul jàng te set na sang naa ko mat na sang te kat bu yii du ma maasam seeni bàyyi kon nag bu leen yemale bamba mat waaye sëriñ ma yaa sin um ben axal ko yaa um bu bëri at at sagal ko um di këram gaayaat moo jëkk a dem baayam ñu rob ko mbàmp na ci ndigalal baayam mu tàbbi aljana bisub keroog la Bamba wax ay xar baax nga xam ne soxna ummi Mbakke mais sama maam dañu rob fo xabru yu mbéy mbay moo ma ko laaj xamu jigéen ñi daa mooy kookële moo di sunu maam Anta Sali ku ñu fa doo tàbbi naar yi salsali maam Anta moo jur maam Mamar Anta Sali bàyyab Sëriñ Tuubaa mi wuutu mursali sëriñ ma yaasin ummi dal di feddli ak njëbbalam di toog di ndab di baddli di yót Sëriñ Tuubaa di yót seexam ya ak taalu béeri yëpp googu ngeen doon dégg seex musaa ka moo ko defal sëriñ mustapha mbàkke falilu soo demee ba ci biir wala fal gi seex musaa ka ma ngi cay tudd ñaari maami sëriñ muudu mustapha mbàkke falilu yooyu muy sëriñ ma yaasin ummi jëng ndax moo meññi soxna busa jëng mi meññi sëriñ muudu mustapha mbàkke falilu te soxna ummi mbàkke sëriñ ma yaasin ummi jëng moo ko dëkkoo woon kon ñaari maam yooyu di sëriñ ma yaasin ummi jëng ak soxna ummi mbàkke ci wolofal bi seex musaa ka defal sëriñ mu mustapha mbàkke falilu ma ngi leen cay tagg soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim nag bis buñ koy fàttaliku muy li ñu tudde ak màggal ginnaw bu mu génnee àdduna ci ñetti fani tamxarit ci atum 1343 ci gàddaay gi doomam ji di soxna faati saam moom sëriñ moor buso moom maam moor jaara daana ko taxawu ñetti fani tamxarit googu ginnaaw gi nag lañ ko yëgal cheikh abdu xaadir mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xadim mu leen di xamal ni bis yooyu daal bu sañoon kenn du ko màggal muy bis yi mag ñi génnee àdduna leen yóbbu nag ci juróom ñetti fan yi tamxarit ñu dolliwaat ci juróomi fan ginnaaw bu mu génnee àdduna kon loolu mooy màggalug soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xadim ginnaaw soxna maam faati mbàkke saam sëriñ basiiru mbàkke saam itam daana wéyal màggal gi ginnaaw bu fi sëriñ basiiru mbàkke saam bàyyi ko nag la soxna maam penda mbàkke moom sëriñ sëriñ omar mbàkke gelongal di màggal ci dëkk bu selli bii di tuubaa kon màggal gi itam màggal nañ ko ci mbàkke bawal ndax bi fi soxna faati mbàkke saam nekkee ak sëriñ baara mbàkke saam ci dëkk bii di mbàkke bawal lañ ko daa defee ginnaaw buñ fi bàyyikoo ñoom ñaar ñooñu nag ba soxna maam xari mbàkke di ko màggal lañ ko indi nag ci dëkk bu selli bii di tuubaa ci quartier bi di tuubaa daaru minam ci kër sëriñ ilimaan mbàkke sëriñ ilimaan mbàkke moomu doomu sëriñ abdu jëdd yooli mbàkke la sëriñ abdu jëdd yooli mbàkke ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim la bokkoon sëriñ abdu jaddu yooli mbàkke moomu nag moo meññ sëriñ ilimaan mbàkke ak jigéenam soxna bu mbàkke seen waajur wu jigéen mooy ku ñuy wax soxna walimata sekk soxna walimata sekk ak soxna mareema daam sekk ñoo bokk benn waajur wu jigéen muy soxna faati kura soxna faati kura ak soxna penda ture ñoo bokk seen waajur wa soxna kura soxna penda ture moo meññ soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xaddim soxna faati kura mii di magam moo meññi waajuru sëriñ ilimaan mbàkke moom sëriñ abdu jaddu yooli sëriñ ilimaan mbàkke moom sëriñ abdu ja duyooli mbàkke lii la bokk ak soxna ummi mbàkke bintu seexul xaddiim ñiy ñaan ci doomu xaadim rasuul ba soxna ummi mbàkke boroom taar ba yàlla ñu ko yàlla fayal te yokk ay leeram ci darajay maam jooju muy wéttali li soxna anta sali kan te suñ boroom guddal nag fanu sëtam yim fi bàyyi moo xam góor ak jigéen ak bépp turandoo bu buñ tudde soxna ummi wala kañ la tuddee ñu tuddee ko soxna ummi te suñ boroom def sutura ak xéewal ci miléem réew amiin ci miléem réew ci mileem réew